gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen xamal ni am na benn itamit surprise bu ñu état defal am na ñu ko xam déjà ni mu ngi tabaxal ndindi benn centre bu mag boo xamante ne ay partenaire la am ñu ñëw financé ko ñu ngi koy tabax ba ñu ngi doon kuule semaine bi passé wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan yàlla yal nañu yàlla defaral jàmm mu àgg si jàmm ba ñu fekkee ko si jàmm ñu dem inauguré kenn ndox ñun ñëpp bu kenn utu yàlla nañ ko fekkee si jàmm ak salaam ba nga xamante ne école boobu mooy gën a yaatu bii mooy gën a mooy gën a am espace moom mooy répondre aussi li nga xamante ne mooy norme formation professionnelle ba su ko defee xale yi gën a mën a nekk à l'aise jàngalekat yi gën a mën a nekk à l'aise ngir mën a jàngale li nga xamante ne loolu lañ mébét yëpp ndax bu boobaa dinañ ubbi yeneen filière ubbi yeneen buntu yoo xamante ne dinañu permettre xale yi gën a mën a jàng ku si nekk mën a gis sa bopp ci école boobu donc loolu tamit ngeen jàppale ñu si ñaan yi mu àgg si jàmm ñu fekk si jàmm si barke borom Touba di gërëm ñëpp di sant ñëpp wax dëgg yàlla damaa kontaan sama xol dafa sedd guy ndax ku ànd ak ay gone di leen former ba nga àgg si fii wax dëgg yàlla sant yàlla rek ak ak ak kontaante rek nga ci mën a am di gërëm ñëpp di sant ñëpp Yacine fàttewu ma leen ak njaay maa ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm El Modou yow moom sama càmmiñ nga de longue doo booba booba booba yaa gën a nekk xale ñuy ànd ba suñ jonn yàlla ji ñuy ànd di téy microcentral ngay téy nii may téy nii ndekete booba yow li nga doon foo li nga doon foowee ndekete moo doon dëgg ci yow ba yaa ngi nii nekk journaliste tey parce que daf la neex métier bi neex la te itamit nga koy def avec performance danga may laaj avis ma lay jox avis nga may ma lay laaj avis nga may jox naan ma nañ def nii nañ def nii num ci anam yi gën a rafete teewaayam bii tey jii nii na ngeen ko xamee noonu gis ngeen bi mu ñëwee dafa dem jël matériel bi nga xamante ne bi daaj daf ñu ko yónnee mu filmer ko ngir mu mën koo poste parce que ku def lu baax ñu wax ko ku def lu baax dañ ko war a wax ngir keneen ku bëgg a def lu baax toppandoo moom El du day wax dëgg yàlla lu baax rek lay def te lu baax la ñuy la ñuy jàppale ci suñu école bi bu ñu accès fii tey par rapport à la communication par rapport à la sensibilisation par rapport ak visibilité centre bi gàcc ngaalaama yéen seen équipe bii da ngeen si jàpp bu baax a baax jërë ngeen jëf moom moom moom monsieur du ma terminer sans remercier le DAGE DAGE euh, ami ami Mbacke bi nekk ministère de la formation professionnel jamono yee passé dafa ñëwoon jox ko fi ay matériel ci IEF ñëpp ñu nga foon je crois que fekk nga ñu ko jour boobu foofu comme dama bokk ci SCOFI ma dem teew ma fekk ko fa daal di koy nuyu el moo di ne ko xoolal madame Seye gis nga ma madame Seye liggéeyam bi muy def ci Touba mu ne mais man madame Seye dama waxoon ñu jox ko ay matériel waaw madame Seye matériel yi ñëw na man ko ñëwul de mu ne déedéet c'est pas possible ca saa si la téléphone wax ne leen na ngeen gaaw ci matériel CFP bu Touba ndax man kat Touba laa dëkk te bëgguma mu des ginnaaw te it mu jàpp ca waxam jooju ju rafet jooju topp ko ba matériel bi camion la ñu wàcceel monsieur Sène Bamba seen monsieur le surveillant bi Bamba seen moom moo ko dem jëli indi camion la ñu wàcceel mooy bagage yi nga xam ne moom la El Modou doon filmer sànq pour won ni rek ñu ngi jàpp gaa yaa ngi jàpp ndànk-ndànk nag mooy jàpp golo ci ñaay ñu ngi siy jàpp ñun ñu ngi wax côté bi ñu mën a waxee ñu ngi koy waxee lu ñu mën a bind ñu ngi koy bind wax dëgg yàlla nit ñaa ngi ñuy jàppale comme ni ñu monsieur le maire di jàppale ñeneen ñi conseil départemental tam di ñu jàppale tamit daaw dimbale woon nañ ci ay machine madame Dage tamit noonu la ñu jàppale moom tamit moo tax ma ne duma ma daaneel à travers le ministre, le ministre de, la formation, de l'emploi et de la formation professionnelle et de l'insertion, de l'apprentissage et de l'insertion maa ngi koy remercier xam ni liggéeyam lay def mais bu ko neexoon loolu yëpp du ko ci fekk ndax am na ñoo xamante ni ñoo ma gën a sonn waaye teewul def na ko kon nag ku def ñu ne la jëf jërë ngeen jëf merci si déglu bi ngeen ma déglu ak dal bi ngeen bi ngeen ma dégloo maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp que la fête soit belle